dóor dóor ñu dem wala salaamaaleykum wa rahmatullah daara fàccal ñoo jaar bu baax sama nijaay teel a teel a na ma fi rek waaw waaw ñetti ñeenti fayda yi lañ indi benn bi mooy da ngay bind ayatul kursi benn yoon nga jël weñu semmeñ tàngal ko ba mu xonq cuun nga fay ko ci saafara bi sangoo ko benn yoon boo sangoo ba teg rek defal lii mel ni kuy vivre lépp lu ñu def dañ na bu soobee yàlla ñaareel bi kam ko dafa xew te accident yi ñu ngi ñaan yàlla mu gàttan ñu lool mu bañ a bari bu fekkee mun naa ñàkk itam yàlla na ko yàlla ñàkkal ci barke yonent bi bala nga génn sa buntu kër da ngay jàpp ba pare nga jàng onze xureeshin soo paree nga tek ci benn falaax def nii incha allah di nga dem bi nga dikk incha allah ñetteel bi mooy da ngay bind fatiha ngay bind benn yoon falaax ñett naas ñett ak benn ixlaas nga wut xobi fudan xobi fudan ngay wut bii fajtal la xobi fudan ngay jël boo ko jëlee nga def ko ci saafara bi def ko xàmb doo ko baxal de saafara bi ngay jël def ci xobu fi dan fudan yoo raxas ba mu set jël xobu fudan def ci boo si defee nag di ko naan suba ak ngoon lépp luy feebaru yaram jildi der yàlla da koy saafara lépp loo xam ne ci biir la nekk itam ci yaram bi suñu borom da koy saafara moo tax ma def euh, maa waraqat fuddan surban sabaaxan wa masaan gis nga flash bi mooy def shifaa'un li jamii amraadil jildi wal jasadi ñeenteel bi dañoo ni màggal gi moom paas lii moom paas la lii paas la aji xayalalu sab xasu ngay bind benn yoon ubbi miim gi def ci cinquante mille rek da ciy def wut euh, cere cere tuuti rek ngay wut ci cere tuuti jël téere bi dugal ko ci biir cere bi fexe koo warax te say bëñ du ko laal boo xëyee am nga ba pare nga sikkat sept sept cent euh, sept mille aj xaylalu samxasu aj xaylalu samxasu aj xaylalu samxasu ginnaaw bi nga ko laytaayee fatiha istixfaar ubbee ko salaatu ala nabi boo mën def nii aj xaylalu samxasu sept mille fois boo xëyee bu soobee yàlla di nga am cinquante mille bu neexee yàlla ñu demaat dañoo wax ni lii kaaraange a lii da ngay bind ayatul kursi benn yoon soo ko bindee nga jël njuru semmeñ mais weñ gi nekk ci semmeñ nga jël ko tàngale weñ googu ba mu tàng nga def ko ci saafara bi dem sang waaw pàcc semiñ muy bant bi voilà weñu semiñ waaw ngay jël tàngal ko ba mu tàng jël ko def ko ci saafara bi sangoo ko benn yoon boo paree nga mel ni kuy vivre comme ni ma defoon sànq su ko defee lépp lu ñu la def comme ginaar gu waaw comme ginaar gi ni muy def pët pët noonu comme ginaar ni muy def soo ko defee bu soobee yàlla lépp lu ñu la defoon day dañ nga yëlbu imaam nee na nga yëlbu waaw kon baax na noonu la ñaareel bi mooy xureesin ngay bind euh, ngay jàng boo bëggee tukki nekk ci yoon di dem da ngay jàng xureesin onze tëjee ko falaxi daal koy ëf sa loxo def ko nii ginnaaw bi nga jàppoo ba pare nag def nii bu soobee yàlla di nga di nga dem si jàmm di nga dikk si jàmm incha allah ñetteel bi dañoo wax ni lii feebaru yaram lay faj ak bu mu doon da ngay bind benn fatiha bind ñetti falaxi bind ñetti naasi bind benn ixlaas nga daf ko xam ba jël fuddanu xobu fuddan daf ci bir di nan ci safara ci suba ak ngone lépp lo xamni sa yaram la nek di metti suba bi nako safara lépp lo xamni sa yaram sa der bi la nek itam suba bi nako safara mo tax ni shifaa'un li jamii amraadil jildi wal jasadi bi nak yobul la aji haylalu sam hasu ngay bind comme ni def 50000 ci bir ou tiere touti rek lo xamni du mat sax ab dank nga jël téré bi dugal ko ci bir fexe koo warax non mu jàll te sey bañ du ko lal boo paree ci loolu nga sikkar sept mille aj xaylalu samxasu aj xaylalu samxasu ginnaaw bi nga ko laytaayal ci fatiha def istixfar def saat annabi boo mën daf ko boo paree incha allah boo xëyee di nga am cinquante mille ci carton yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërë ngeen jëf